asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen dal leen ak jaamu seen sport 221 ñii di FIFA dañoo dal di joxe ndigal sélectionneur yi nga xam ne dañoo dal di qualifié ci coupe du monde bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ñu woor lu toll ci ñaar fukki joueurs ak juróom-benn ku nekk am nga ndigal ngir yóbbu lu toll ci vingt 26 jours bu ñu sukkas sukkandiku ci kayit xibaar yi. mu nekk nag loo xam ne xëy na xibaar bu neex lay doon ci yenn ci sélectionneur yi nga xamante ni xëy na dinañ nañu am jafe-jafe lool ngir war a segg seen ab ba mu des lu toll ci ñaar fukki jours ak ñett ndax lool moo doon doon list yi nga xam ne moom la ñu doon faral di am ci coupe du monde yi nga xam ne weesu nañu ko bi yoon nag FIFA dal di ci yokk kon ñetti jours yu mu toll ci ñaar fukki jours ak juróom-benn dina neex lool ci sélectionneur yi nga xamante ni fii ci Afrique la ñu jógee ndax gis nañu ne ci CAN bi ñu weesu kat am na ñoo xam ne yóbboon nañu lu toll ci fanweer ci ay jours suñu sélectionneur bi di Aliou Cissé yóbboon lu ko xëy na nag ñu gis ne groupe boobu nga xamante ne moom la amee woon bu ko waree segg boole ko renfort yi nga xamante ne moom la ñu am doon na nekk jafe-jafe lool mu war ci mën a segg ba dese ñaar fukk ak ñett kon dina tane lum néew néew ngir war a mën a am lu toll ci ñaar fukki jours ak juróom-benn ci li nga xamante ne mooy coupe du monde boobule. ki nga xamante ni mooy Cristiano Ronaldo kii di xibaar yi biral nañu ne kat jamono bii mu ngi jubale Bayern Munich wala bokk Bayern bëgg nañu ko gannaaw boo xam ne jamono bii kat dafa nekk ci yoonu génn club boobu di Manchester United ndax du dañoo nar a gis Cristiano Ronaldo ak Sadio Mané war a jouer bokk ci benn équipe. loolu mooy li nga xam ne xëñ na fi mu ne nii mooy xëñ ndax kat ñi di Bayern ni ki démb rek lañ dal di officialiser transfert ki nga xamante ni mooy Sadio Mané. tey ji kayit xibaar yi biral ne jamono bi Cristiano Ronaldo dafa nekk ci yoonu génn club boobu gannaaw boo xamante ni bayaax na ñu ngi ci yoonu ñàkk kii di Lewandowski ndax kat Lewandowski jamono bi mu ngi puus ngir xool yenn pexe lay def ba génn club boobu bayaax na mu ngi ci war a wër ko ko war a remplacer ñu jàpp ne xañ ne Cristiano Ronaldo dana nekk joueur boo xamante dina doon ko war a mën a remplacer Lewandowski ndax am na expérience xam ne bayaax na def nañu ko waaye daal jàpp nañu ne ñoom jamono bi Cristiano Ronaldo mu ngi ci seen xel ngir xool yan pexe la ñuy def ba signé ko gannaaw bi mu nekk ci yoonu génn këla boobu di Manchester United bu ñu ko ci kayiti xibaar yi ki nga xamanteni mom lañu wax pa Ousmane Sakho mom nak dafa daal di marqué wat benen bal mom nak ganna bo xamanteni gis nañu né semaine bi mom ay mbiram dafa tang jër ndax kat ñetti match yi mu jé jouer ñent bal la ci marqué ak ñaari passe décisif lool nak bu ñu xool benn bal lay doon yo xamanteni tank mo ngi ci mom ki di Pape Ousmane Sakho nek fele ci Simba FC Simba FC nek fele ci Tanzanie kon moy koy toj jamono bi voilà mom gone gi de juróom benn bal ci ñetti match yo xamanteni tank mo ngi ci ñetti daf ko ñenti daf ko duggal ñaari mu dal di ko koy joxe muy ñaari participe bu ñu sukkandekoo ci kayit di xibaar yi Sadio moom jamono bi fii ci Afrique mooy ki ci ëpp salaire tey footballé foofu la ci Europe africain yi nga xam ne ñu ngi footballé ci réewi tubaab yi Sadio mooy ki ci ëpp salaire gannaaw boo xamante ni gisoon nañu ne at yi weesu kat joxuñ ko woon gëddam ndax dafa bokkoon ci ñu gënoon a néewi salaire tey ji bi mu signé ca Bayern mooy ki ci ëpp salaire nekk ci kanamu ki nga xamante ne mooy Mohamed Salah ak nga xamante ne mooy Riyad Mahrez Sadio Mané bi mu ngi fayeeku lu toll ci deux cent cinquante mille de livres muy xaalisu Angleterre maanaam bu ñu koy xeem dina toll ci côté trois cent mille dégg nga maam d'euros xam ngeen xaalisu Angleterre de livre sterling moo ëpp doole li nga xamante ne mooy euro bi voilà two di fayeku par week loolu nag mbir la moo xamante ni jàpp nañu ne ñi di bayax na ñoo jox gëdd dëgg ki nga xamante ne mooy Sadio Mané mooy ki ci ëpp salaire fii ci africain yi footballeur foofu la ci Europe kii di Salah moo ci topp ak mille de livres ki nga xamante ne mooy kii di Riyad Mahrez moo ci topp ak deux cent mille de livres sterling par semaine kii di Lewandowski ne ñi nga xamante ne ñoo di bayaax na euh, jamono bi jot nañu offre Barcelone bu toll ci trent cinq millions d' euros Barcelone trente cinq millions d' la ñu teg ci taabal ji muy seen offre bu yees bi nga xam ne moom la ñu jàpp ne moom la ñu jëndee Lewandowski amagul nag benn réponse bu ñu jot ci ne jóge na ci bayaax na waaye kayiti xibaar yi ci ëpp bu ñu bindee dañu naan njort nañu ne bayaax na dina ko dal di rejeté ndax dafa soree lool ak li ñuy laaj bayaax na li ñuy laaj mu ngi toll ci cinquante mille cinquante millions de livres wala 50 millions d'euros moy li nga xamne mom la Bayern Munich di lacc ci ki di Lewandowski voilà way Barcelona nak offre bi nga xamne daf nañu ko mo ngi toll ci 50 wala 35 millions d'euros bu ñu sukkas nga ko ci kayiti xibaar yi ñi di Olympique de Marseille jamono bi dañuy dox ci signé ki nga xamanteni mom lañuy wax Nuno Tavares nek kat ab joueur Arsenal ab latéral gauche la toll ci ñaar fukki at ak ñaar li ñu bëgg moy Arsenal abal leen ko ñëm wa Marseille bu ñu sukkas ne ko ci di xibaar ci loolu lañuy dox jamono bi ngir ki di Nuno Tavares ñi di Arsenal dal di leen koy abal ki nga xamanteni nak moy Seko Fofana moom Paris Saint-Germain ñoo ko bëgg a jënd foofu la ci Lens kayiti xibaar bi ren nañu ne Paris Saint-Germain ñu ngi waxtaan ak Lens ngir xool yan pexe la ñuy def ba signé ki nga xamante mooy Seko Fofana mi nga xamante ab Ivoirien la jamono yi kayiti xibaar yi biral nañu ne jàpp 40 millions moom dinañu ko def ci transfert boobu bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar loolu looloo fi rusandi ci tënkum xibaar continuez leen di suivre Sen